asalaamaaleykum sama gaay yi asalaamaaleykum sama gaay yi maa ngi leen di jaare di leen bégee di leen jox seen wàccuwaay ak seen yéeguwaay di leen dalal seen seen YouTube di leen wax ngeen di abonné sama gaay yi abonné leen ngeen like vidéo yi abonnement bi zéro franc la amul fay xam nga loolu moo si gën a neex xam nga bu dee da ngay dem di jënd ay xawmal bugguma def publicité mais da ngay def da ngay fay ko mais si abonnement bi fii zéro franc la like gi zéro franc la gars yi abonné leen ngeen like ko loolu ngeen ñu mën a encourager quoi parce que fii chaîne bi dañ ko tëjee pour voilà fo mais tamit di mën a partager ak suñu ay idée di mën a taataan seen ay idée ci commentaire yi comme ça ñuy gën a sottante xalaat quoi boo leen gisee tey cap bi ma sol nii yéen a ngi gis New York tey maa ngi New York parce que instant bi New York moo xew boo leen gisee cap bi ma sol ngeen xam ne maa ngi New York parce que actuellement New York moo xew man maa ngi New York damay jaajëfal waa New York non New York instant bi sama xol dafa sedd si ñoom parce que dama nekk di gis loo xam ne daf maa man dama dama musul toog imaginer ko musuma woon a xalaat ne am na keneen ku ñu mën a barricade fii ku dul président Ousmane Sonko Ousmane Sonko da laa gisan ci koo xam ne moom amul ndey suñu génnee ñu barricade ko mais bu Ndafa moo dem ba New York mu mel ne mu mel ne kaña foofu fu mu génnee ñu ngi koy yuuxoo ñu ngi koy sotti ay ndox léegi loolu doyatul mais dañ ko mujjee barricade barricade mbeddi New York yëpp teg fépp ay barricade mel ne président Sonko buy dem di di wuy ji eh, tribunal ni mbedd yi daan mel police yi taxaw fu nekk ak seen i barricade ak seen i seen i ah affaire bi mujj naa changé de police mbaa da ngeen yaakaar ne Ndafa mi mooy Sonko kiiru Sonko kii Ibou Ndafa la moom mooy barricade waate di jàppaate di tëjaate man nag li ma si jaaxal mooy li mu doon def sénégalais yi lépp dafa dem New York ñu fay ko borom ba wisal ko Ibou Ndafa lii dalaa war a yee nga xam ne àdduna yàllaa ko moom te yow doo yàlla doo yeneen di nit kese nga nga jàpp sénégalais yi di leen xoqatal di leen bundaxatal gis nga tey nekk Sénégal faral fi Ousmane Sonko ni mu méttee nekk bitim réew faral fa Ibou Ndafa noonu la méttee actuellement soo nekkee ci biir réew mi fara Ousmane Sonko yow moom doo nekk si jàmm waaye ay boo faralee ndafa ba dem diaspora rawatina fii fii non ñii il faut ma dem fii il faut ma dem fa quoi seeti leen parce que dama kontaan si ñoom daal waa waa New York li ngeen may defal fan yi sama xol dafa sedd xam nga patriote yi ñun suñu xol fan yi xawloon sedd jamono yi yëpp mais ñun waa New York li ñu naqari woon yëpp da ngeen ñu ko fajal parce que voilà quoi am na loo xam ne def ngeen ko te neex na ma man daal neex na ma quoi japp ngeen gaay soppi len ay kagne ci mbeddi japp ngeen gaay soppi len ay kagne ci mbeddi fuñu genné yu génnee yaangi dal ndox yaangi ngi legi nak nag fariñ la ñu ut fariñ waa waa New York dañoo jënd fariñ léegi ku genn ñu fariñ la xepu la fariñ sot la ndox nga dem sangu ci bo indalo wul yere da ngay wayé di aduna ngi ni priyen aduna senegal kessa la fi ngeen di nekk di toroxal nit ñi di jaay doole nit ñi di def lu leen saf di ngeen génn bitim réew bëgg a am jàmm te doo leen am jàmm may leen nit ñi jàmm moomoo ni nit ñi may leen nit ñi jàmm moomoo leen nit ñi moomoo leen nit ñi boo leen nekkee fii di dof dof lu nag da ngeen di génn ci biti fekk fa ñu leen gën a dof man diaspora kontaan naa si yéen waa New York mention spéciale ni ko waa New York defee nag France Allemagne États-Unis Angleterre Suisse Canada ba Burkina Faso fépp foo xam ne waa kër Ibou Ndafañ ñëw nañ fa bu leen leen may dara parce que ñun ñi ci réew mi juddoo fi yaroo fi màggee fi suñu am fi suñuy maam ak suñuy bàjjan am fi suñu teraanga nanguwuñ ñoo may jàmm kon ñoom bu ñu génnee bu ñu am jàmm ñoom tamit garsa garsa bi da ngeen yaakaar ne jeex na parce que ñu bari damay gis depuis ñu jàpp Ousmane Sonko ba léegi ñu doon moo doon wax garsa garsa pour yéen garsa garsa bi jeex na tey la garsa garsa bi gën a saf te boo leen gisee li leen waa New York def di ngeen xam ne garsa garsa yéen munoo leen ko bu lu weesu làqatu ci ginnaaw police ak gendarmerie munoo leen laneen yeen xex bi ngeen xex xeex yépp da ngeen di ci ginnaaw police mu leen defal li ngeen bëgg mais en tant que yeen seen jëmmi bop ngeen genn jakarlo patriote amo leen fit bop parce que li ngeen di jaay am nañ njëgam te mën nañ ko jënd motax ngeen làqatu ci ginnaaw police da ngeen di baye police bi ngeen làqatu ngeen jakarlo ñun kon ngeen xam li ñu wër ko di def ñun mën nañ ko dé té est ce que ñu leen ko sax nak ñun gatsa gatsa rek lañuy def mais police ngeen da ngeen di làqatu ci ginnaaw force de l'ordre wa FDS ñom ñoo leen di jappalé ñoo leen di xeexal ñoo leen di tajal ñoo leen di defal li ngeen soxla yëpp après ngeen pare di génn di sibile yéen yéen jom sax dafa def dafa manqué ci yéen quoi parce que yéen doo leen xeex te boo bu leen waa FDS yi xeexalee ba pare ngeen génn jubile moo tax bi ngeen demee foo xam ne FDS yi nekk ñu fa foofu FDS yi fa nekk doof ñi dina jàpp ñu ba fay jàpp benn citoyen di ko dóor wala ñu koy torturer gis nga liñ leen di def foofu bu doon fii la ba léegi dégg nga ñu naan ñaari moor am na fa ñetti moor am na fi loolu fii la am Sénégal dañoo jàppee bakkanu doomu aadama yi ay morso soleil ay ay kayitu journal lañ koy jàppee mais Europe foofu amul yooyu nit ki dafa am liberté boppam génn taxaw wax li ko naqari nag ak façon bi mu ko mënee la koy defee fii boo leen bëggee jaam toog leen ci biir réew mi te seen toog ci biir réew mi sax nag deux mille vingt quatre yow à partir de deux mille vingt quatre Sénégal dina mel ni New York ci yéen yéen waa Kër Ndafa yëpp nag à partir de deux mille vingt quatre Sénégal dina mel ni New York ci yéen. li leen naqare woon New York yëpp fii la leen di gën a naqare parce que à part deux mille vingt quatre di ngeen ñu may jàmm soit ñu di ngeen sonn lool quoi parce que coono bi ngeen di coon mooy ni ngeen sonnee lay woon Sénégalais yi deux mille vingt quatre incha allah rabi Sénégalais bu ñu amee fulla dina jeex de Sénégalais bu ñu amee fulla deux mille vingt quatre seen coono dina jeex moo xam ci façon buñ koy mënti jeexalee mais deux mille vingt quatre coono bi Sénégalais yi di dund dafa war a jeex. loolu moom def leen ko seen xel bu baax a baax a baax a baax a baax a baax encore une fois waa waa New York waa New York oh waa New bari barricade nañ ndafa instant bi ndafa comme kaña ndafa day dem ci kii hôtel bi gars yi fekk ko fa yor seeni bool di tëgg di voilà di def la leen saf ndafa rocceeku jaar ci suuf demaat beneen hôtel man xaw ma yi dañ ko localiser xaw ma parce que man li ma gën a jaaxal mooy ndafa hôtel bu mu dem gars yi fekk ko fa ah man tamit patriote yi ah man de yàlla seq ak yéen jàmm rek yéen moom seq ak yéen jàmm moo gën a wóor quoi parce que li ma gis nii <laughs> patriote yi xajuñu si kenn coolee fi nekk rek coolee bari rek mais gisee patriote yi ma gis nii euh, il faut il faut ma jël yoonu noqoro garawaa wi quoi yoonu noqoro garawaa wi il faut ma jël ko. parce que waa New York instant yi dama sama xol moo sedd si yéen il faut ma jël yoonu noqoro goro yi mën a ñëw jàkkaarloo yéen wan leen sama mbégte quoi kontaan naa si yéen yi kontaan nañ ci yéen ñun fi ñu toll nii jaratul sax ñuy def ay demande ay manifestation liñ bëggoon def ci réew mi yëpp defal ngeen ñu ko bitim réew defal ngeen ñu li ñu bëggoon yëpp lépp lépp ngeen ñu defal maanaam bu doon dañoo annulé ay cinquante manifestation yéen fay ngeen loolu quoi fay ngeen fay ngeen ko ba wis fay ngeen manifestation yooyu noonu ñu doon déposé gars yi di ko annulé yooyu noonu seen li ngeen def nii fay ngeen ñooñu képp ku meroon xolam sedd na ndax yéen gars yi kontaan nañ de kontaan nañ yéen ngi may seetaan kontaan nañ def leen loolu seen xel ay sénégalais yi kontaan nañ te nag diaspora bi yëpp def leen comme noonu Italie France Angleterre Suisse Canada ba ci Guinée ak Mauritanie ba ci Gambie gi am leen seen gis naa signature contrat Modou Lo Ama Baldé bi ngi ni ngeen ko sonkorisé combat Ama Baldé Modou mu ngi ñëw nag ñun sax suñu yoon nekku si làmb mais Ama Baldé suñu mbër la ñun patriote yi gars yi dañuy dem stade dañ koy feesal te dañ koy sonkorisé te xam naa ne Ama Baldé mooy jiite ci sonkorisation boobu kon combat boobu suñu combat la ñun patriote yi borom bés bi mooy ñëw mooy ñëw waaye man photo Sonko yi tamit lu ko boole ci bés bi xam nga tamit yenn yi c'est offense la nag tamit ne wax dëgg yàlla ñu baal ma ñu ma barki yaa rasulaay ngi bëgg a bari bari la de bu Sonko ma ne Sonko ngi a bari bàyyi la de buur Sonko Sonko bu dee waa kër Modou Lo waaw Sonko topp ne leen waa kër Ama Sonko topp ne leen Sonko may bëgg jaaxal gis nga dégg nga mu may bëgg a ah, a jaaxal de Sonko ma ngi bëgg bari doole ci réew mi déggal Ama Baldé dañoo ñu naan Sokone baax na. Dodo ñu ngi noonu gis nga ay photo Sonko laa gis photo Sonko ya ànd na loo sax photo Sonko yooyu laa gisaat Dodo. maa ngi noonu ma nag photo Sonko yi si waaye jaaxal na ma ma jàll ci kanam Dodo may ma may maa ngi seen Ama Baldé maa ngi seen Ama Baldé maa ngi naan gars yi may leen ma wax dëgg photo yi xaw ma la duudu xam nga waa waa Pastef fi dañoo nekk fu ne stratégie la duudu Ama Baldé ñu noonu may seen dafa mel ni mooy mbër patriote yi duudu dafa mel ni <laughs>